fekk fi nag kon eh, ñi nga xam ne eh, ñoo fi eh, liggéey si jamono joo xam ne nag comme ni nga ko xamee ñu ngi waajal tabaski bi wante itam di waajal aj màkka ñoom nag ñu nekk ñoo xam ne dañuy yëngatu bu baax a baax ci wàllu kon ay bagage xam naa sax balaa may kii damay bàyyi ki nga xam ne moom lañ fi fekk Maxtaar mu dugal ñu ci li nga xam ne kon daal ci la ñuy yëngu sëñ bi Matar maa ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Dofène ñoo ngi leen di fay bu baax a baax a baax macha allah euh, di kontaan bu baax a baax si ñëw bu ñëw seet si waa Saloum ji Devel Trading mm-hmm. si jamono bu nga xam ne ñu ngi si euh, préparation aj gi comme retourle euh, ñu aji joon bagage bu ñu war a jënd pour séddale yàlla def naa lépp am na fi lu am màkk yëpp am na fi mm-hmm. kenn jëndatul màkk ñëpp Saloum ji lañ jënde actuellement si loolu lañ nekk clients bagage la ñuy jënd actuellement par rapport sax clients yi aji ainsi ñoo gën a occupé mhm. pour que euh, clients yi tabaski bi pour ñu war a jënd pour faire tabaski bi actuellement moom ñu ngi si clients yi aj hmm. fi mu nekk nii kon ma déggee si client aj yi ngeen di gën a am que ne client tabaski ñooy ëpp actuellement ñooy ëpp doole hmm. mais lu a loolu lu waral loolu euh, pour lu ñu war a séddale bu ñëwee màkka lu ñu war a jënd màkk yëpp am na fii donc buñ ko jëndee fee rek jënd lu ñu war a séddale lépp lépp lu ñu soxla rek mu ngi Saalum jidda mais ci jamono tabaski bi itam du ñàkk ngeen am ay. waaw jamono tabaski bi aussi client yaa ngi ñëw. ñoo ngi jënd ñu nga xam ne simisi alaaji yi jàllaabe yi babus yi tout ça yi ngi ñëw ñoom it. ay kaala daa mel ni gis naa fi jigéen ñi jënd ay kaala. kaala lépp am na parfum cuuraay sijaada tout pour tabaski bi ñu ngi ñëw bu baax waax baax macha boo ñu ñëwaalatee ci bagage yi nga ma wax léegi ne maanaam da ngeen koy jaay rawatina aju Makka bi yan hmm. xeetu bagage la. Euh, lu am na sijaada hmm. yu nga xam ne moom la waa Makka di faral di indi comme ku si mel ni sijaada kurus bone cuuraay sam-sam tàndarma hmm. yooyu yëpp am na ak euh, jàllaabe euh, simisi alaaji yi yooyu yëpp am na fi en général ujaaji yooyu la ñuy faral di joxe lépp am na fi macha fi mu nekk nii euh, naka nga gisee euh, affluence bi maanaam nit ñi ñuy ñëwee. peut boo ko méngaleek daaw wala yooyu. waaw alhamdulilah ñu ngi ñëw bu baax a baax ñu ngi ñëw bu baax a baax a baax parce que boo xoolee ren lu dem màkk dafa xaw a bëri moo tax. Mm-hmm. ren lu dem moom daa bëri. par rapport ak yeneen année yi ren moom client yi ñoo gën a bëri que par rapport ak yeneen yeneen année yi quoi parce que ren ñu dem màkk moo bëri te lu tax ñu gën a bëri mooy maanaam client yi. comme ñu nga xam ne dañ ko daan jëndee màkk léegi jëndeetuñ ko fa parce que fii leen koy faral di jëndee parce que le problème mooy màkka booy xool jëndee fii mooy gën a yomb maanaam jëndee fii mooy gën a yomb jëndee màkk parce que la problème mooy lu am fii rek moo am fee te bu ñu wecceekoo xaalis fii bu ñu demee foofu tey dafay gën a seer. bu ma liggéey kon même kii la même produit la. même produit la. Hmm, même article. même article. Hmm. donc nag jëndee ko fii xam naa mooy gën a yomb. ok moo tax client yi fii la ñuy jëndee bu ñu fii la ñuy jëndee bagage yëpp lu ñu war a jëndee fii la koy jëndee. ndax mën nga ñu fàttali peut-être ku bëgg a ñëw Saloum Jeddah fu ngeen nekkee. waaw Saloum Jeddah ku fi bëgg a ñëw ñoo ngi Sandaga si quarante 48 rue Fleuris angle Polaur. Euh, mën nañu aussi 77 356 32 32 macha allah. Mhm. Mm. waaw ñu ngi lay jaajëfal suñu waxtaan. ok merci beaucoup. waaw soxna Kumba yow tam ñu fekk la fii Saloum Jëda ngay jàppale sëñ Maxtaar ci liggéey bi euh, ana euh, naka la daal mbir yi demee jamono ji nga xam ne kon mën nañ ne une semaine rek moo des ci lii di tabaski bi. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu waa seen info di nuyu Ndofène di nuyu suñ caméraman bi di leen nuyu ñëpp di nuyu client bépp buy jëndee fii Saloum Jëda euh, di leen wax ne période bi ñu ngi waajal tabaski bi bu baax. clients yi ñu ngi ñëw aussi bu baax. Mhm. Euh, mais client ñi aji la ñuy gën a gis. ok que client yi ñëw pour jënd bagage ay jàllaabi yi. Mhm. période bi euh, zam-zam bi mu ngi dox ak euh, tàndarma bi ak semisu alaaji aussi day mhm. gën a dox. sijaada yi aussi dañ ci jaay bu baax waaw ñu gis daal client kii ñiy dem aj ñu ngi leen di gis bu baax. ñu ngi ñëw di jënd si. la nga jàppee peut-être moo waral loolu moment bi ngeen di gën a am ay clients aje que ne dafa am peut-être yeneen fête yu ngeen di gën a am clients yu soxla seen bagage. waaw waaw parce que période tabaski bi ci la ñuy gën a jaay par exemple chemise alaaji xale yi. Mhm. Euh, période korité lay gën a dox waa mhm. parce que xam nga tabaski bi ñu si bëri dañuy ñawlu. korité bi ñu bëri jàllaabe la ñuy soxla parce que moom mooy gën a oyof ak yooyu mm-hmm. noonu. Mm-hmm. waaw mais nag ñu ngi gis ay clients yoo xam ne dañuy ñëw pour jënd jàllaabe pour tabaski bi mais ñi dem màkka moom ñoom lañuy gën a gis. Mm-hmm. kol yi mooy gën a dox colum asli yi mbaxana bone yi semisu alaaji yi. zam-zam ak tàndarma yooyu moom client yaa ngi ñëw bu mm, baax ak jàllaabe yi comme comme ni nga sonnee rek waaye yi jigéen yi aussi mu ngi dox bu baax ah. waaw am na ñu koy ñëw di ko jënd si dëgg la waaw euh, instant bii nii euh, comme ni ma ko waxee sànq rek euh, ana peut-être lu may laaj ban message ngay wax rawatina jëmale si client yi waaw ñu leen wax rek ñu ñëw Saalum Jidda parce que fii boo fi ñëwee lépp li nga soxla am na fi lépp loo soxla pour jëndee ko maaka mun nga koo amee fii ndax bagage yu ñuy jaay yëpp am na am nañ ko yi ñuy soxla pour maaka am nañ bagage yuy jugee jidda am na yuy jugee euh, maaka am nañ bagage yoo xam ne ay bagage marocain la bagage boo soxla daal yoo xam ne soxla nga ko pour dem màkk ñëw joxe sëriñ ci am na Saalum Jidda mhm. am nañ bépp bagage boo soxla waaw dëgg la kon daal jarul peut-être ñuy sonn di jëlee bagage yi màkk di indi ba fii jarul di dem màkk parce que màkk boo fa demee boo xamul xaalis bi mën na cher si yow te fii mën nañ la ko jaay moins cher nga am ko qualité bu baax. Mhm. fii daal boo fi duggee moom di nga satisfaire li nga bëgg moom di nga ko am incha allah euh, ku leen soxla nga fàttali ñu adresse bi rek. ku ñu soxla da ngay ñëw fii Sandaga ñoo ngi rue Fleuris angle Paul Euh, soo ñëwee ba si kii bi rek si jaaykatu soow yi moom foo laajtee euh, Saalum de xam nañ ko. Mhm. Sandaga moom boo ñëwee foo laajtee Saalum de xam nañ ko. dëgg la boutique bi aussi emplacement bi baax na ñit ñi xam nañ ko. Mhm. waaw ku ñëw daal fii lépp li nga soxla di ko fi am incha allah. dëgg la waaw <laughs>